waaye mënuma la wooy sama crédit nga bëgg maa wër ndombo du ma ko nangu danga may bàyyi ma expliquer am naa crédit bu doy su ma paree nga expliquer ah nanguwu ko ma ne ko sëñ bi boobu déglu nag nga may ma rek ma ma si tu veux tu peux raccrocher ma comme moo ma ne si tu veux et je veux ah, ma raccroché fekk daf ma envoyé message. ne ma Cheikh El Hadj Omar waxtaan bi nga def ci moom démb maa ngi ci Thierno Bachirou Mountaga daaxa Cheikh Omar ba 2 heures du matin maa ngi fa quitté 2 heures 30 du matin démb moom amul lu mu waxut ak doomam Thierno Cheikh maa ngi àndoon ak Serigne Souleymane Samb maa ngi àndoon ak Sayid Guèye maa ngi àndoon ak Mansour Guèye maa ngi àndoon ak. Aliou gay ak man ci sama jëmmi bopp muy juróom ñun juróom ñoo bokk toog di waxtaan ak Thierno Bachir ba deux heures trente du matin lañ fa jóge man bi ma yegsi ci kër gi yaakaar naa trois heures et quelque la parce que mu ngi fii Wakaam dafa ñëw woote ne mu ngi fi ma ne ko ah la ma daloon dootuma dal bale dafa ñëw ba dem gisante wuñ dañuy raccroché rek ma ne àcce leen ñu dem waaye alhamdulilahi rabbil alamin ndekete waxtaan bi ma fi waxoon ci Cheikh Oumar wër na àddina bi Thierno Bachir nag amul lu mu ci waxul nit du tagg boppam la wax yëpp nag ku ko fekkee fekkeewuloon amoo sens xanaa ñi ko fekkee nettali leen ko rek mooy ñi ma wax muy Mansour Guèye bi Serigne Souleymane Samb Sayid Guèye Aliou Gaye ak man te man du ma nettali sama bos ñoom nag buñ nettalee baax na ndax nit du waxu ci boppam déedéet loolu duma ko def jamais ñoom nag fuñ ko nettali ñoo xam waaye nit du wax ci boppam moo tax lam wax nag ñu koy sante yàlla waaye ki nga xam ne balaa ñuy dugg ci tafsir bi ki nga xam ne dafa laaj rek waxtaanaguma ci Cheikh Oumar waxtaanoon naa ci 2010 incha allahu dinaa ci defaat beneen waxtaan boo xam ne dinañ ko jël ndànk ndànk ba mu jeex donte sax ci benn jotaay laa koy def waaye explication yi gën a leer donte leer na waaye ku bëgg lu lëndëm it mënoo fexe ba wax ci kanamam lu leer ndax man li ma wax leer na dara liñ la mujj beneen bi ci des mooy incha allah du yàgg buñ tabaskee ba pare rek bëgg naa ak sëriñ Babacar si ndax ñu bare ngi wax ne waxtaan naa ci Seydul Xaaji Malick waxtaan naa ci Cheikhul Xaaji Abdul Aziz waxtaan naa ci alaaj Cerno Saïd Nuuru waxtaan naa ci Serigne Habib bu Serigne Habib bi nag Omar Diop moo ko réeral te am na yoo xam ne na nga ko waxee woon xëy na di nga ko maîtriser waaye euh, jotaay yi du benn palaas yi du benn maqaal yi du benn xaal yi du benn booba daal bu ko mënee gisaat bi ma waxoon ci Serigne Habib na ko fexe mu gis ko moom Omar Diop waaye incha allah danañ ci def waxtaan jubluwuñ ci rek lu dul laaye nit ñi biir laaye ko suñ bopp. bi ci desit mooy ñëpp xam suñu mag ñi ñu am xam ne ay jamaa lañ démb rek am na yu ma Cerno Bachir nettali ci sëtu Cheikh Oumar yi taalibe Cheikh loolu moo ko waxoon fii àddina tukki laajal Mansour gi hmm? laajal Sayid ana Sayid waaw ah, laajal laajal ali ana laaj leen laaj leen eh, nu góor ga tuddati Bachir naka ma Lamine Lamine Bachir Tall waaw kañ dee leen jàpp de Aliou Gaye anamu waaw Lamine Bachir Thierno Bachir nee bu ko ci kenn jëfe ku ko ci def ku ko ci jëfe billahi danañ la rob du benn de lu ngeen dégg nit wax na ngeen jëfe ko yéen ñi may seetaan ak yéen ñu toog laa wax du benn kooku setu Cheikh mar la yegg na ci ci yàlla Thierno Bachir nee onze mille onze mille jawaratul kamal la daan def par jour onze mille jawharatul kamal xam nga nit ñi douze mille salatul fatihi rek tën na leen boo lekk yeneen i dog salatul fatihi yi mu ci daan def kenn xamul nu mu toll Thierno Bachir nee na dafa wér doon ba baaraam bi dafa lekku dafa lekku ba jeex ndax kurus nee na bu la mosaan teg loxo lu mu la wax rek yàlla def ko lam ma net lam ñu nettali ci moom mu ne waxuma ak Cheikh Oumar keroog lu ne ca dund lu ne Thierno Bachir wax nañu ko waaye daal ki may ki ma doon laaj dafa ma laaj nag mu ne ma mu nga Mauritanie mu ne dama wax ne Cheikh Oumar deewut naa naa ko expliquer lu tax deewut mu ne naa ko expliquer it moom dafa jàng ne il a disparu dans les falaises de Bandiagara ma ne ko danga nga bàyyi sax am na lu ca des mystérieusement ma ne ko dans les falaises de Bandiagara mu ne ma ne ko am na loo bàyyi mystérieusement bu fekkee dégg naa tubaab quest que ça veut dire mystérieusement ah mu ne ko tubaab bi sax màndu na moom ki may seetaan ak ku mel ni moom ma ne ko bu dee da jóg pour diingat ma nag mu ne ma ne ko man bañuma ku ma diingat su ma bañoon ku ma diingat du ma jël sama téléphone woo la wala déet kuy kuy daw débat du woote téléphone te moom bañ na ko ba amul crédit daf ma envoyé message xanaa maa ko gën a baax boobu su ma neexoon na lire message am ne pat du ko xam waaye loolu day niru daw débat dëgg la wala du dëgg ma ne ko ku ñeme débat la waaw ma ne ko man ragaluma débat ndax xam naa li may wax te loolu ci laaj ma tontu ko incha allah ma ne ko waaye da avec kalm da nga may déglu rek. ma ne ko yow da ma ne da nga jàng ne il a disparu dans les falaises de Bandiagara ma ne ko waaye am na lu des mystérieusement loolu la tubaab bi bind ma ne ko benn ma ne ko déjà rek loolu maandu la leer na mooy dafa réer mystérieusement Issa Faye boo ko doon firi noo koy firee yow professeur maanaam lu kenn xamul mu miinut ci nit mu di ko demee xam nga nit day dem ñu ne réer na xamuñ fu mu jaar wa euh, ci benn xale bu réer walla koo xam ne dañ ne mu ngi fi woon démb réer na waaye kii dafay xeex di xeex di xeex ba yegg si te sabab bi moo di dama tudd tur waaye billaahi lépp xam naa ko xam naa ñan la xam naa ñi ko def ñu ngi fi seen njaboot a ngi fi waaye nag kuy defar du yàq te Thierno Bachir mu ngi koy nettali bii mooy dàq ndax dafa tombal juste keroog dama ne ko boo bëggee xam ndax Cheikh Oumar dee na wala mu ngi dund demal nga laaj xalifaam Thierno Bachir mun tagaa daaxal Cheikh Oumar moom dina la wax ndax maamam mu ngi dund wala dund beneen bi ci des moo di Eh, nit ñi daal dañ xeeb seen bopp nit ku nag rawati ci dafa xeeb boppam kuy defar du yàq te man dama jàpp ne liy jagal senegal ci man la war a jóge dama jàpp ne kenn ku nekk ci ñun liy defar réew mi jàppal ne ci yow lay jóge waaye kenn ku nekk ci ñun it na yëg ne li yàq ci réew mi su wattandikuwul ci moom lay jóge bu ko kenn puus kenn na ñëpp kenn ku nekk na yëg ne lii defar réew mi ci loxoom la ne waaye kenn ku nekkit na am maandu te yëg ne lii yàq réew mi ci loxoom la ne ba bul def lu yàq tey def luy defar man lii laa gëm lii laa gëm bu ñu sous-estimer kenn buñ jàpp ne kenn bon ñun ñoo baax léegi rek yéen a ngi koy dégg ku seetaan 2STV Serigne Mbaye Abdoul Aziz maak moom bi ñu doon def Scat Urbam léegi la ko 2STV mu ngi koy wax bu yaakaar ne ñun ñoo baax ñi ci des dañu def noonu déedéet dañuy defar rek te ñëpp mënuñ bokk di wax fokk am ñu yàlla nattu ñuy wax am yàlla nattu ñuy déglu bu ci nekk nattu la nam waxee ne li yabluwakumu ayyukumu ahsanu amalan ca suratul mulki bam ne maa leen bind xalaxal mawta wal xayaata maa bind bind dund ñu ne ko lu tax mu ne li yabluwakum dama ko def ngir nattu leen ayyukum ana kan ci yéen ahsanu mooy gën a rafet amalan ci jëf ba bu ñëwee ma fay ko lu rafet hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan du noonu hal jazaa'ul ihsaani illa yàlla ne ko def lu rafet boo ñëwee fekk fi lu rafet mun waaye ko def safaan it ba ma delloo la safaan yi nga am rek yàlla amul lu ñaaw safaan ba nga def la lay jeñaat waaye yàlla amul lu ñaaw maa asaabaka min xasanatin fa min allahi waaye maa asaabaka min sayiatin fa min nafsik gis nga moo lay wax ne yàlla amul lu ñaaw maa lépp loo xam ne asaabaka jot na la min tukkee xasanatin ci lu rafet fa min indillahi yàlla ne fi man yàlla la joge fàttalikul ne maa lépp loo xam ne asaabaka jot na la min sayyi'atin ci lu ñaaw fa min nafsik yaa ko jëf ma fay la ko mu teg ca wa arsalnaaka li raasi li naasi rasulan mu ne ko yow ndaw la nga rek dama laa yónni yow sallallahu alayhi wa jotalal li ma la yónni rek kon Sénégal daal buñ bëggee mu defaru kenn ku nekk ci ñun na jàpp ne lii defar réew mi ci loxoom la ne muy defar rek bum déglu bum xool bum vérifier lu yëg ne bu ko defee mu jag na ko def waaye kenn ku nekk ci ñu it na yëg ne liy yàq réew mi mu ngi ci loxoom boo bëggee noppalu da nga naan liy defar réew mi yëpp àddina ak laaxira mu ngi ci sama loxo ndeyjoor bii nga fas yéene tàllal sa ndeyjoor di defar lu baax. loo xam nga wax loo xam nga jëf nga jàppit ne lépp lu bon lu yàq réew mi mu ngi ci sa loxol càmmoñ nga bànk ko bañ mu tàlleeku ba àddina bi yépp daje woon pour bànkar ñi ko lànkal ndax lu bon kenn du ko fësal lii de laa gëm moo tax lu baax rek laay wax feeg maa ngi dund luy defar rek laay wax feeg maa ngi dund yiw rek laay jéem di wax feeg maa ngi dund incha allah moo tax Cheikh El Hadj Omar bi mu nekkee ci jihaad ji masuñ ko gañe juróom-ñaar fukki jihaad xeex na ko yépp moo ko gañe yi ci nekk am na ci yoo xam ne bu ma la nettali woon fi ñun jëflanteeg buur yooyu le xaju fi ndax li ma wax léegi waaye incha allah yépp danañ ci ñëw danaa ci def waxtaan spécial boo xam ne duñ ci wax tafsir duñ ci wax dara spécial Cheikh Oumar la spécial Seydi Aboubacar si incha allahu taala waaye ki ma laaj rek laay tontu lay jéem a tontu sama kamte lay kattan Omar mooy dundam maanaam mooy turam ayin soixante-dix la miim quarante la ra deux cents la ayin gi mooy soixante-dix soixante-dix boobu lañu wax ne moom la fi def ci at soixante-dix ans ñoom gi mooy quarante ñeent fukki xare la xare raa gi mooy deux cent muy Omar ñaar téeméeri téere la taalif moom dundam sankul dundam Cheikh Omar sant dundam juróom-ñaar fukki at la dund ci kaw ñii ñuy gis ak moom mu baasaratan di jaxasoog moom pour lay deew gi moo tax may wax yàlla dogal mooy ayin mooy soixante-dix mooy omar omar boo koy bind ayin la miim ak raa o ayin gi soixante-dix la soixante-dix ans la fi toog ak ñun miim gi quarante la quarante xare la xare mosuñ ko gañe ci benn xare raa deux cent la deux cent téere la taalif xare yëpp benn mosuñ ko ci dominer yëpp moo ko dominer bu mujj bi nag buñ daan dem rawxaanu tariqa bi mooy ànd ak moom yaakaar naa ku seetaan bi Aminatu sama doom bi la di jël tarixa bi ci sëñ Mor bu dee Omar te teg na yëpp yaakaar naa war na ko teg de bi sëñ moor di wax rawaxaanu tarixa bi mos naa leen ko fi netteel rawaxaanu tarixa bi at mi yëpp benn yoon lay fanaan faas li ci des yëpp Sénégal lay fanaan Tiwaawan lay fanaan ci rawdu Seydul Xaaji Malik démb rek Thierno Bachir wax na yu garaaw ci Seydul Xaaji Malik te Cheikh Omar mooy maamam dimb wax na ma yoo xam ne ba ci ba ci Chérif Younous yoo xam ne mosuma ko xalaat yooyu de dinañ ci ñëw wallahi ba ci Chérif Younous digganteem ak Seydou El Hadji gis nga ku bëgg xam-xam jegeel mag ñi ku bëgg xam-xam neexul wax loo de dem fa taxul mu wax ak yow de <laughs> ku weddi demal yaa ngoog Thierno nga. nan kañ li may wax jarut nan kañ li may wax kon mu weddi essayé rek Thierno nëbbatuwul kenn waaw waaw ñëpp xam nañ ne man rek maay wax loo Thierno su ma ñëwee rek day féex loolu nag yàllaa ko def sama digganteeg moom complicité boobu yàllaa ko def sama digganteeg moom te ñu ngi fa dem ay minuit lañ fa dem de ba deux heures trente Chérif Yunus Seydi El Hadji Malick amul kum bàyyi amul kum bàyyi wax na ma ci Chérif Yunus loo xam ne mosuma xam ni sax lool ak li may xam-xam Chérif Yunus yàlla xam na ko mosuma xam loolu mu tekkee ne moom mooy xamoo dara eh? mag ñi yàlla leen yàlla fayal waaw ah, mag ñi yàlla na ñu leen yàlla fayal kenn du ñoom eh, moo wax ci euh, lu ma fu ma toll woon rawxaanu tariqa bi yéen a ngi dégg sëñ Mor di ko wax te du nàddal Tiwaawan déglu Thierno Bachir a ngi koy wax mu ne kenn ci setu Seydina Cheikh yi du ma tudd turam parce que am na ñoo xam ne bugg li doonte lii la sax bugguñu may tudd seen tur xam nga àddina bi neexut bon billaahi wal am na ñoo xam ne doonte yiw la man ma tudd leen bëgguñ ko kon duma leen tudd te man du wax ci kenn safaan su ma demoon ba xam ko muutuwaale ko ndax am naa bu ni mel te maa ngi ko muutuwaale mu ne dafa am benn sëtu Seydina Cheikh moom Thierno Bachir mooy nettali bu mos a ñëw fekk si leen fuuta Thierno Bachir nee na moom la santoom sax pour mu dajale nit ñi nee na mu dajale ñëpp ñu toog mu ne ko Bachirou mu ne mu ne boobu Thierno Mountaga bii sax mu nga fa mu ne ko Bachirou mu ne mu ne ko li tax ma def lii na mu ne ko si Cheikhuna Tidiane mooy suma maam mu ne ko waaye tariqa bii ku ci bëgg dara di nga wax ak Cheikh Oumar wa illa di nga nekk taalibe waaye doo yor dara doo bokk ci ñu ñuy lim surtout Seydina Cheikh ko wax Thierno Bachir hmm? waaw kon Cheikh Umar yàllaa ko may lim am waaye yàlla bam noppalee ñëpp mooy bam ne wa anna al fadla yutihi man yasha wallahu zu fadlin azim yàlla ne na ngëneel ci sama loxo la ne maa koy jox ku ma neex ku ma neex yooyu danga xam kan la xamoo kan la ki neex yàlla rek la yàlla wax te yàlla mbindeefam yu bari nañ fi may njëkkee balaa may ñëw ci loolu mooy na ñëpp xam ne dee jombul Cheikhu Umar loolu laa bëgg ñëpp xam ko dee du gàcce dee du torox tànge dee du ñàkk grade au contraire dee grade la ci grade yi parce que ci la la yàlla di fay li nga jëf waaw ku retraité wu doo xam njëriñu pension waaye de eh, màgget yoo xam nga li may wax ndax liggéey nga France ba retraité ñi liggéey ba retraité yi ñu ngi fii ana gi sow mu nga nele gendarme la fu ne ànd na fa ak Senghor fu ne ànd na fa ak Abdou Diouf retraité na tey di lekk pension ku retraité doo xam njëriñu pension dee retraite la rek jeex na ndax moo dee dootoo liggéey fay rek lala yàlla di def la nga jëfoon nag lalay lay fay wa anna laysa lil insaani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura yàlla na nit amut lu dul jëfam dina jëf dinaa la dinaa la may nga teg ci sa bët moo xam yiw la wala safaan la kon dama bëgg nit ñi xam ne dee du gàcce dee jombul Cheikh Umar ndax yonent bi bu ko fi yàlla jëlee sëriñ Cheikh Tidiane si nee na dee honneur la mu ne moo tax yàlla teg ko yonent bi mu ne ndax yàlla du teg mukk yonent bi lu naqari sëriñ Cheikh a digg mu ne dee honneur la moo tax yàlla teg ko yonent bi ndax yàlla du teg mukk yonent bi lu naqari ndax mooy waayam moom la féetewoo mu ne kon du ko teg mukk ko naqari mu ne dee honneur la moo tax foog yonent bi jaar ci pour yàlla honoré ko dee honneur la wallahi dee honneur la kon jombul Cheikh Oumar ndax ñi gën Cheikh Oumar def nañ ko Cheikh Oumar yonent yee ko gën amul yonent bu yàlla bind te gëmut gënut Cheikh Oumar amul cent vingt quatre mille prophètes yëpp ko gën te cent vingt quatre mille prophètes yooyu yëpp yon ñoo ñu gën ñun ñëpp ku dul ñoom ñoo la gën waaye ñoom ñooñu ñëpp tànneef yooyu nag la ñuy baax baax rasulullah leen gën gën ka leen gën kon bu yàlla jëlee dee teg ko kooku muy rasulullah teg ko anbiya yi jiite woon teg ko asxaabu rasul waaye kum ko tegu kum ko tegati waru te diis ci yow dama bëgg a wax nit ñi ne leen dee du gàcce Cheikh Umar dee jomb ko waaye yàlla muy dogal dee dogal dund moo dogal ci moom ne du dee te yàlla waxal boppam ne am na ñu ma ñoo xam ne duñ dee yàlla ko yawma yunfaxu fi suur fa saxiqa man fi samawati wa man fi l ard illa ma shaa allah beneen bi mu ne illa man shaa allah ñaar yëpp bokkuñu lu ñuy dox maa ak man ku jàng bayaan ak mantiq di nga xam ne duñ benn ak usul ku ko jàng di nga xam ne duñ benn kon e, yeneen yi nga xam ne gisuñ leen te ñuy dund mooy la alaaji abdul aziz waxoon radiallahu an samaniyatun xukmul baaqi ya ummuha xasida ba hiya al jannatu wal arsh wal kursiyu wal lawx wal qalam wal ujbu wal jannatu wan naaru juróom-ñett yi duñ dee waaw te yàlla bind xam nga ñàkk a dee taxul nga nekk yàlla ñun ñun ñun dañ foog ne ku du dee rek yàlla nga déedéet ñàkk a dee dafa tax nga nekk yàlla. yàlla bind dee di bu bu dee bu doon ñàkk dee eh, tax <laughs> soyadullah bu doon ñàkk dee mooy tax nit nekk yàlla kañ kon ñi nekk yàlla bari nañ ndax yii du dee hiyal arsh aras du dee te yàlla ko bind te yàlla doyewul arash dara ndax ba muy am arash amul moom moo créé arash kon yàlla doyewul dara arash ci biir bind la bokk rek aras ak ñu ne yem yàllaa ko bind bind ñu kon bu yàlla tànnee ne aras du dee loo ci mën te ne kullu nafsin zaahiqatul mawt aras du nafs am na bakkan wala déet bakkan yee bokkul alaaji Abdul Aziz daan na wax ne radiyallahu an kullu yooyu mënuñu dara yàllaa mën loolu la sëñ Abdou daan wax mu ne kullu yi mënuñu dara doxuñ tus yàllaa mën mënuñoo def mënuñoo dind lu dul ci ndigalu yàlla kullu yooyu li ñuy foor foor foor ci ndigalu yàlla la ñuy dox kullu nafsin zaahiqatil mawt kullu nafsin kullu man alayha faan ah kullu shay'in haalikun ñetti ñetti yooyoo nekk ci alquran kullu nafsin bakkan mu mos dund dana mos dee zaahiqatul mawt kullu man alayha faan yàlla ne lu nekk ci dund bi rek danaa ko faagaagal kullu shay'in beneen nafs la wax bii shay benn shay la garab yéeg géej yeeg yëpp dugg haalikun shay bi ñoo ñoo ko moom pour wane ne dara du fi des shay bi jamaadaat yee ko moom ah jam Thierno Bachir démb génneel lañu grammaire yu ma mësul digg ci kaw suuf loo xam ne billaahi ustaas yi di kër kër yëpp xamuñu ko ay grammaire yoo xam ne man Thierno Bachir daf ma jaaxal xam-xam bi rek moo la njëkk a tartib bi mu koy def loolu laa mosul dégg sax ku koy def gannaaw alaaji Abdul Aziz billaahi wal kitaab te man boo waxee mu ne sëñ tolluwuma ko fii démb rek moo ci mujj mu ne sëñ <laughs> bokk na ci ñi nga xam ne bu xalam bi bindee ba pare xalamu yàlla ba lay wax de bu bindee ba pare bu ko neexee mu ne yàlla dindil ma loolu dal di ma ci tegal moom Cerno Bachir ne ma eh, wa innahu umul kitaabu lu ko jiitu yamxullaahu mu ne ma maxyul maxu la yamxullaahu maa yasha mu ne wa yusabbit lu tax wa innahu umul kitaabi mu ne boobu nag ña ko sëpp te yàlla jox leen ca ndigal lu leen neex ñu dindi mu ne te sëñ Abdou ca la bokk wax ñu ci sëñ Babacar si loo xam ne wax ñu ci eh, eh, eh, Cheikh naa Cheikh sat bu loo xam ne démb laa koy door a dikk man foogoon naa ne xam naa ni ki xaw ma dara dara dara dara daara dara ba dara booloo jeex. démb li ma Thierno Bachir wax ci Cheikhna Cheikh bu dinaa def spécial waxtaan ci Cheikhna Cheikh Sadbou ndax suñ mbokk xaadir yi xam ne ñun ñoo bokk lépp démb li ma Thierno Bachir Muntaga Daha Cheikh Oumar xalif général Omariya Omariyen lim ma wax ci ci Cheikhna Cheikh Sadbou billahi bëgg nga xaadir bu ko xamul kon nañ ànd rek te yàlla tax ndax Thierno Bachir doomu mag la doomu mag la. baayam est-ce que xam nga ne moo mag sëñ Babacar si ca Nuuruta Gàddaa moo mag sëriñ Babacar si may wax am na ci koo xam ne ci ci ci tab bàjjanam yi dund na téeméeri at ak fanweer ak ñett gis na Cheikh Oumar fekkee na xare yi te mu ngi dund yàlla nit bàyyi yàlla ak boppam mu bàyyi yàlla muy yàlla dañu utal yàlla limite waay waay utalal Chérif Ibrahima limite waaye yàlla amul limite yonent yi sax bu la neexee nga utal leen limite ndax am nañu ko mais yàlla amul limite te yàlla dara tënku ko amul lu tënk yàlla su ko neexoon léegi di bëccëg wax na ko ci alxuraan ne su ma toogoon ba xaaji guddi ma def ko bëccëg lu ngeen ci mën ñu ne ko dara mu ne bu ma toogoon ba diggi bëccëg ma indi guddi lu ngeen ci mën mu ne wa min jaala layla wa nahaara ci sama kéemtaan yi moo tax ma def guddi ak bëccëg xilfatan ñu wutu wante mooy xilaaf daf ko tanwin pour wane ne bii day dem bii day ñëw kon dee du njombe dee du gàcce Cheikh Umar dee jomb ko waaye yàlla muy dogal dee moo ne du dee loo ci mën juróom-ñetti mbir yi ma wax du dee benn hiyal arsh aras du dee kursi yu du dee ayatul kursi yi ko xam kursi yu xam nga ko bokkul ak chaise yii ñu xam nag donte chaise lay firi arash gàngu naay lay firi mooy piliyaan boo ko doon firi waaye boobu piliyaan du piliyaan yi ñu xam ne ngàngu goo xam ne yàlla du ca tëdd ah noo koy firi wa kaana arshuhu alal maa'i liyabluwakum ñëwaat wa kaana arshuhu alal maa'i noo koy firi yàlla ne bi ma bindagul dara boobu arashan ca ndox waxul ilal maa'i waxul fil maa'i alal maa'i ala xarfu jar wa kaana arshuhu alal maa'i mu ne waaye li yabluwakum kon aras du dee kursi du dee lawx mooy àlluway yàlla ja àlluwa ji yàlla di bind jëf yëpp bind ci li am yëpp tur yëpp affiché ci micro bii may waxee sa mu nga affiché foofa turam a nga fa amul luy rot ci kaw suuf maa yalfizu min qawlin illaa ladayhi raqibun atib wala ratbin wala yaabisin illa fi kitabin mubin wa ma tasqutu min waraqatin nit ñi nañ bàyyi xel yàlla yàlla du nit du malaaka du mbindeef yàlla dafa am indépendance moom moom lépp bind lépp yëlif lépp nañ ko bàyyeeg lépp aras du dee kursi du dee lawxu du dee mooy lawxul mahfuz fa la yàlla bind lépp yonent bi biñ ko ko laajee mu ne doy na ci may expliquer leen rek ne lawxu mu ne ah mu ne alquran ji baqara ba naasi cent quatorze saar la six mille six cent soixante six aaya mu ne boo demee ca aras benn bind la fa ak dogit matul deux lignes ca ca boo demee ca lawxul dog bind la ligne ak dogit matul deux lignes kaamil bi yëpp baqara benn naa si matul deux lignes kon boobu àll àll wala de ah waaw te àll jooju am na ñoo xam ne bu soxlaa fa la yàlla dimbali woon leen Lamine Bachir bii may wax Thierno Bachir nee na ci la bokkal ñoo xam ne seen njàng yëpp yàlla day wuññi aras wuññi lépp ñu janoog la waxu luñ bëgg xool wax. mu ne dem bi toog bés rek ñu tàggee ko doomam boobu muy réanimation kooku la wax ne ba léegi mu ngi dund am na 133 ans ñu ne ko Lamine Bachir sa doom faatu na mu ne sama doom mu ne ah mu ne malakul mawti ku muy jël dinaa dinaay damay gis sax malakul mawti ñi muy jël si ñëpp ci àddina bi xam nga loolu noo koy déggee mu ne ñu daf leen moom day teg bët malakul mawti Azraïl mu ne ñëwee tàgge ko mu ne rooxam gisuma mu bokk ci roox yi dem deewul ñu ne dafa naax mu ne ah waa baax na doom demut rooxam demut gisuma ko ci roox yi dem ci bés bi yëpp gisuma ko ci roox yi dem ci bés bi gisuma ko ñu ne wax wax wax ñu ne bàyyi leen ko góor gi dafa naax mu ne ñu toog tuuti médecin bi ñëw ne leen dafa xamoon xam bee ëppoon ba léegi mu ngi dund te moom dem na nee na bàmmeelam boo demee fi mu nekk nii garab ga fa sax kenn xamut boobu façon garab ban garab la peru kurus lay génnee mangasa sa mbokk la taalibe Cerno Bachir la xam naa yi am na lu ngeen bokk yow magasa mi le mangasa ne moom biñ fa demee ziyaar sot naa ba ba for per ya mu ne bëgg a dagg Cerno Bachir ne moom bul dagg yi rot jëlal rek waaye bul dagg benn nee na bañ jolliwaatee garab gi dafa yéeg ba mënatoo ko jàpp dafa monte ba mënatoo ci wét tiim bàmmeel ca Mali fa lañ ko denc nee na bi nga xamee ne waroon naa ñëw fii alaaj Cerno Seydou Nourou xoolal dara jaam nee na alaaj Cerno Seydou Nourou Cerno Bachir ay wax de mu ne dama leen ciy mosal rek dama leen yërëm yërëm ki ma doon laaj mu ne dafa bind lettre Cerno Alaaj Cerno Saïd Nourou da koo bind lettre ne ko Lamine Bachir dama bëggoon nga gane si ma Dakar ndax waa senegal am ci sa barke bi mu ne ko ñëwuma seetal ko Cerno toll ni Alaaj Cerno Saïd Nourou nga ne ko ñëwuma waaye Alaaj Cerno si mu ne ko bañuma la xam nga ko bëgg naa la waaye damay bañ a ñëw li may teralee te daan ko jox miskiinu yàlla yi man ma tax nga xañ leen ko di ma ko jox seetal boobu boobu social mu ne xam naa ne bu ma ñëwee di nga dajale hàddiya nga jox ma ko te damay bañ miskiinu yàlla yi nga daan jox man sama ñëw bi tax joxatoo leen mu ne alaay carnu alaay carnu sayid nuuru moom it kenn du moom kalaamee ko rasulullahi nee na rasulullahi Cheikh na Tidiane Cheikh Umar Fuutiyu alaaji Malick dem fekk ko xaay ne ko ndax danga nga dof alaaj Cerno Seydou Nour woolu la ngay diig diigal jógal nga dem wuyu ji ko nee na mu buub ay bagaasam ne alaaj Cerno Seydou Nour kuy gane nit ñetti fan mooy àqi ngan waaye man dañ ma patam patamee forcé ma pour ma ñëw fekk yeewu woo ma du ma dem Cerno Bachir ne ngan googu Cerno Seydou Nour ñëpp la woo Sëriñ Babacar Si alaaji Mansour alaaji Habib alaaji Abdou Cheikh al Islam alaaji Ibrahim Niass Seydina Issa Laay sëñ Fàllu Mbàkke ñëpp a ñëw ca ngan nga nga xam ne mag ñi dañ daan communiquer mag ñi dañ daan communiquer ñun ñu des fi rek dagg lépp kenn ku ne ñu naan la yaa ko yor te yoroo na Bachir an man li sax dama koo xamatut ku nekk ñu naan la yow la yow la yow la yow lu ne ci yow lu ne ci yow mu ne nit buñ la jeey ba nga foog ne dara nga te doo dara bref aras du dee kursi yu du dee lawxu du dee <laughs> ah waaw aras du dee kursi yu du dee lawxul maxfuus du dee xalam du dee ah, eh, al udbu mooy yaxu yamar kiic moo nekki ci diggi ginnaaw moom la ñuy wax yaxu yamar kiic du dee lu tax nit di dee te yaxu yamar kiij du dee alaaj Abdu nee na boo ko bëggee xam mooy sarpanc ci gaal booy defaraat gaal gi ci ngay sukkandiku rek yëkkati gaal gi moo tax lu nit suux lu koy suuf lekk lekk lekk mënta lekk yax boobu wa hiya ramim la yàlla wax yax boobu du ramim man yuhyi al izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladi anshaaha awwala marratin wa huwa bi kulli xalqin alim kookoo di yàlla ka ko sosoon bam dul dara moo koy indiwaat bi muy dara berapat yaxu yamar kiic moom la ñuy wax ujbu du dee ajjana du dee safara du dee ndax buñ doon dee kenn du fa dugg te dañuy dund noonu amee dafa am yeneen mbindeef yi yàlla jagleel ñu am nafs al lawaama boole ci sax te duñ dee doonte seen lawaama doxut yaa ayyatuha nafsul ina lañ am ñoom seen lawaama dañ ko rey ndax duñ def mukk luñ leen di yeddee nga suñu defit luñ leen di yeddee Cheikh Oumar ci la bokk moo tax waaw nangu nañ ne wali yu xadir du dee ku ko weddi weddi nga rasulullahi yonent bee ko yonent bee ne wali yu xadir du ci lay bokk bu ñuy régler day ñëw taxaw rek kenn du ko régler waaw lu ko neex dunde kenn du ko régler day ñëw rek taxaw bee ko wax de te euh, moom waxam wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa lu tax allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil aala suma dana fatadalla garanti bi mu am la sallallahu alayhi wa sallam moom lu mu wax rek noonu la te moo ne waliyu qadir du dee la la woon ne waliyu qadir du dee yonent yàlla Moussa ba mu ko fekk see ñu bari foofu boo leen laajoon rek ñu jóoru même borom téere bii sax def ci def erreur xaasiyatu saawi ala tafsiril jalaalayni bii ma yor nii di ko tafsiré def ci juum waaw ci juum bari na koo xam ne buy waxtaan ci waliyu xadir ngeen ci yàlla Moussa bu yéexee génn ci lislaam ndax boo ne waliyu xadir moo raw Moussa génn nga ci lislaam Moussa di bu yonent kii du sax ma wax lu garaw du wëliyu nit nit ku baax la saalix la waaye yeggul ci awliyaa yi yàlla lu ko neex def démb ko Thierno Bachir di wax ne comme doon wax ba ma téyee sama gémmiñ mu ne du wëliyu dafa baax rek kooku sax mën naa ko tudd dinaa dinaa ko tudd ndax nekkul ci réew mi muy muy Abu Talib Abu Talib bi jur euh, Seydina Ali Abdul Mutalib dama juum Abdul Mutalib Thierno ba nee na du waliyu mu ne ci xel ak xam-xam rek la waxe mooy ba muy wax ne kaaba gi am na borom walil walil bayti rabbun borom kaaba gi na ko garanti mooy wattu am jox leen ma samay alal rek ma dem sama yoon mu ne ba mu koy wax ci xel la ko teg ak xikma waaye du waliyu ñu nangu xadir ñii nangu ak waliyam ñii ne waliyu la ñii ne ku baax la yonent yàlla Moussa di yonent bokk ci ulul azmi min rusuli wa kallama allahu Moussa takliman moom rek ko ci am Moussa labbayka ya rabbi wa saaday moom rasulullahi rek a ko ci am kun doonul ci ñoom illa min warai hijaabin rek wala mu malaaka ci yow muy jibril am na ci yonent yoo xam ne jibril mosul ñëw ci ñoom sax yàlla ci gënt rek la doon waxee ñoom am na ci yonent yoo xam ne jibril mosul ñëw ci ñoom yàlla ci gënt rek lay waxee ak ñoom képp ku gëm ne waliyu xadir moo raw Moussa rek génn nga ci lislaam mënu koo raw xam nga noo boo bëggee noppalu xam nga ni nga koy déggee alkaati biñ fi teg pour mbedd mi ak procureur biñ ne ku la neex woowal benn la alkaati bi sañul violer loi bi te ku violer loi bi mu mu ne la seereel procureur nag fële la toog bu ko neexee mu ne indil leen ma Chérif Ibrahima ma vérifier ay mbiram ndax dañ ko jox pouvoir jox ko autonomie ci gouvernement bi ba am sañ-sañi ku ko neex woo dëgg wala déet kañ walul xadir yàllaa ko ne maa la jox sañ-sañ ci sama nguur loo doxal noonu la wa ataynaahum min ladunna ilman eh, naka sababan dimbale leen ma te suratul kahfi lu ne mu utal ko sabab te sabab boobu yàlla ko koy wax xam nga lu tax waaw kay c'est très simple yontu yàlla Moussa dañ ko fi teg ngir charia bi kii dajeeg xale yàlla ne ko reyal xale bi xale bu am juróom-ñaari at walul xadir ak yéen te booba lay sabab donte téere bi loolu la indi dinaa leen ko wax waaye du loolu dafa juum dafa juum moom boo demee ci xasiyatu saawi dafa ni yontu yàlla Moussa dafa waaraate ba yaramam tàng mu ne ku ma fi raw amu fi yàlla ne ko bind naa ko la raw loolu njuumte la yàlla bind na ku ko raw waaye yónniwu ko <laughs> looluy différence bi moom te yàlla du weddi boppam di yónni nit di ko fakkastal kon noo koy déggi voilà noo koy déggee yàlla du yónni nit di ko fakastal bind na ko raw Moussa waaye nag yónniwu ko booba ci jamono yónni ci Muhammad moo raw yónni ci yàlla Moussa waaye yónniwu ko woon mu nga woon ci azal ñëwagut ah sa turandoo si Isa moo raw yónni ci yàlla Moussa waaye taxul mu ñëw booba ñëwagul sax moom voilà. yàlla bind na ko raw yoon ci yàlla Moussa waaye yónni ko boo ma wóolu yu boo gis day nekk yonent waaye du nekk day gis nga wóolu boo gis mën naa nekk wóolu yu te du nekk yonent waaye yonent boo gis obligatoirement wóolu la waaye du wóolu bu nekk ay nekk yonent leer na xam nga foo koy déggee te mu ngi fii ci alquran ji wa annal walaayata lillahi alxaq wa anna alwalaayata lillahi alxaq mu ngi fii ci alquran ji wilaaya moo juuti moo jiitu nubuwa nit dina nekk député te du nekk ministre nit dina nekk ministre te du nekk député kenn mënta cumuler ministre ak député waaye député maire am na wala déet dañuy cumuler maire ak député moo tax ñu naan député maire waaye ministre député amul fen ci àddina bi lu lay wóor fële rek seet ko fii ñaata honorable député maire nga fi gis waaye honorable député ministre gis nga ko moom kañ booy nekk ministre dindi sa ndombol tànk député waaye laa nga sax ci ministre député gi bàyyi ministre gi yoon ci yàlla Moussa kenn sippal yéeru ko même Aaroona bi nga xam ne yàlla daf ko ko mayoon maa ngi ñëw ci Cheikh Umar de ki lay tuddee réew moo tax moo réew fa yàlla Cheikh Al Umar moo réew fa yàlla moo tax réeru ma de ki may expliquer maa ngi ñëw déegi lay lay moom déegee ko jaaxal lu tax deewut li tax deewul moo tax may lay yonent boo gis yonent la waliyu la waliyu boo gis mën na nekk waliyu waaye mën na bañ a nekk yonent te awliyaa yi rek ñooy nekk xutbu sew sew a ngoog encore dégg ngeen wax aqtaab yëpp ci awliyaa yi lay génnee waaye benn yonent du nekk xutbu si waa seydil wujudi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que yéen a ngi may déglu aqtaab yi ci awliyaa yi rek la ñuy waaye duñ génnee ci anbiyaa yi te fokk xut bu am ba yowmal qiyaam ba yàlla bindee maam aadama ba fii ma toog di wax ak yow xut bu mosul ñàkk ca maam aadama nag ba ci rasulullahi ku mas nekk yonent maam aadama laa wax ba ci yonent yàlla isa ku mas nekk yonent yonent ngay nekk waaye xutbaani ya gi keneen a koy yor mën nga ko xam mën nga ko bañ a xam ndax dégg nga wax bi bu baax yow mi may déglu nekk Mauritanie te buñ wooyee yonent yi bu fi yonent yi génnee rek aqtaab yooyu la yàlla di jox responsabilité àddina ak àllaaxira ñoo koy doxal mënuñu ñàkk aqtaab yooyu fukk ak ñeent lañ. quatorze yi set yi ñooy xutbu plein set yi ci des ñooy mafatihul kunuz ay xutbu lañ mafatihul kunuz yooyu ñoom la yàlla denc dénk trésor public bu asamaan ak suuf wa lillahi xazainu samawati wal ard ñoom la ko yàlla dënk ak tab yooyu mafatihul kunuz ñooñu ñuy wax mafatihul kunuz baat bi sax moo ko firi caabi koofur foor yi ñi ko yor caabiir koofur yi caabi koofur yi ñi ko yor set lañ set yooyu alaaji Abib si ci la bokkoon Cerno Yaxya li mooma ko wax mu ne ma te moo leen jiite woon sëriñ Habib si yeneen set yi ñooy xut bu plein yi xam nga noo koy déggee ministre ak ministre d'État tous les ministres président moo leen di fal premier ministre mën na leen folli suñ ko jaaree ci yoon rek waaye ministre d'État nag ministre premier ministre mënalu ko dara président rek moo tax gaaw yi léeg-léeg bu ñuy pré bu ñu ànd président dañ ko naan man bëgg naa nekk ministre waaye ministre d'État xam nga lu tax bokkuñu parti te bëgguñu ñu gaaw ñu dàq ko te premier ministre bi mën na ko mere dàq ko moo tax dañ koy def ministre d'état moom lien direct ak président de la république la premier ministre sañut ci moom dara du ko digal du ko tere sañu ko bu ko neexee mu ne ko maa lank ki la nommé ma nommé moo tax ñu ne ministre d'état